رجائي رفع الدين والسنة التي تجاهلها الأقوام في كل قرية الصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا محمد مزهر ذات الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى الله حق قدره ومقداره العظيم قلنا sant yàlla julli صلى الله عليه وسلم ñoo ngi nuyu mboolem julit ak fu waay mën a nekk ci aalam bi rawatina yéen ñi nga xamante ni yéenay siiwul seen bi di At-Tahawun TV di amaan mbégte bu baax dikkaate yéen si émission bi ñu naan bànneexu koor waaye si thème bu am solo bi ñu naan husnul xuluq di jikko ju rafet ba tey ñu indi leen point bu am solo bu ñu wax kayfiyatul husuuli ala husnul xuluq naka la ñuy def ba am jikko ju rafet ak leen si ngëneel yi ba tey ñu ànd si Oustaz Assane Niane oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziara di la bàyyee kàddu laaj ndax am na ay sabab ñu mën a jaar pour am ñu ko ji ak leen si ngëneel yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ginnaaw bañ sant yàlla julli ci maulana rasulillahi alxaaji ñu ngi lay nuyu beneen yoon di am kontaan ak mbégte eh, dellusiwaat ànd ak yéen ci seen émission bi nga xam ne mooy bànneexu koor way di nuyu julit rawati na ñi nga xamne ñu ngi top ci seen bi nga xamne moy at-taawunu euh, comme noo waxe rek alhaji ci laaj bu am solo euh te yaakaar ne suñ euh, question bu mujj ci thème bi nga xamne semaine bi yëpp mm, ci lañ nekkon ak yeen te moy jikko ju rafet bonne manière mu nekk lu am solo rawatina ci rew wala rew mu manti doon diine ju manti doon soxla na jikko ju rafet euh, comme noko laaje ci laaj bu am solo bobu nga xamne ci lañu wara ñew tay ta moy nak lañu def ba am jikko ju rafet wala ci yeen cause lañuy yeen course lañu mëna amé jikko ju rafet yeen sabab waye nak lori timit eh, ak lenn ci ngeeri lu jikko ju rafet buñ ko suñu émission bu mujj buñ jallalé ñu ngi lan waxtaan ci ñent mbir yo xamné ni moy ñent comportement comportement wala ñent jikko yo xamné ni ci la mbolem jikko yu bax yi daje ci la mbolem jikko yu rafet yi daje bu ci njëkkoon waxoon nañ mooy sabr mooy muñ boo demee ci yenn borom xam-xam dañ ne al xikmatu mooy borom mooy xikma ku am ku xarañ maanaam xikmatu nga am xarañteef am ñu wax na mooy sabr muñ deuxième bi mooy al mooy fegu euh, troisième bi mooy ashujaatu mooy jàmbaar euh, quatrième bi mooy al adlu mooy maandu ñeenti jikko yi borom xam-xam yi nee nañ mboolem jikko yi baax yi. ñu ngi daje ci ñeenti jukki yu ñooy cosaan yi dana ci baax na tey balaa ñuy continuer di ñëw ci suñuy laaj mooy ñi wax wax ki nga xam ne moo ñuy déglu ne comme niñ xamee ne ñeenti jikko yi mboolem jikko yu baax yi ñi ngi dajee ci ñeenti jikko yooyu kon nga xam ko baax na lool nga bàyyi ci xel baax na lool pour nga jéem a am jikko yooyu te mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ jàngale woon waaye dana ci baax nga xam safaan bi mooy borom xam-xam yi génne neen yeneen kat jikko yoo xam ne nii mboolem jikko yu bon yi ñu ngi dajee ci ñeenti jikko yooyu tamit euh, loolu nag bu ci njëkk mooy ak jeexlu mooy réer tey àdduna bi lu ci bëri ci problème lépp luñ am ci ay problème ay jafe li ñu ko yóbbee mooy réer ñàkk a xam euh, rawatina di wax ci loo xam ne xamoo ko wala maîtriser ko moo tax dëgg-dëgg ñun suñ mag ñi dañ sonn di jàngaloo seeni ndaw wala réew mu nekk xam nga réew bu bëggee avancé wala bu bëggee am ndam sax dafay jàngaloo ay ndawam dañuy sonn ci jàng ak gëstu pour am xam-xam waaye ñàkk xam ñàkk xam bokk ni ci jikko yi nga xam ne nii ci jikko yu bon yi nga xam ne nii borom xam yi dañ kaa boole ci kaat yi nga xam ne nii mboolem jikko yu bon yi dañaa dajee ci ci kaat yooyu lañ dajee kon lu ci bëri kon ñàkk xam dafay yóbbee dafay yóbbee doomu aadama lu bëree bëri dafay yóbbu doomu aadama ci jikko ju ñaaw yóbbu ko ci ay jikko yu bon beneen bi mooy zulm moy togn togn borom xam-xam boole nañ ko ci kat jikko yi nga xamne mbolem jikko yu boni fofu lañ dajé ta moy togn ta togn yonent bi ñu bo gisé alquran wala hadithul qudsi ñew di wax sax yalla di wax ne man ci sama bop sax man yalla dama aramal togn ci sama bop def na ko seen bir mu lo haram bu len di seen bir yalla ko day ni yalla di wax ne man aramal na togn ci sama bop kon bu len di seen bir ñi xamne kon togn mbir mu dansé la wala jikko ju bon la joo xam ne war nañ kaa moytandiku moo tax borom xam-xam yi ne tooñ bokk na ci kaat jikko yi nga xam ne nii mboolem jikko yu bon ci lañ daje beneen bi mooy mooy ashahwa ashahwa mooy shahwatu mooy bànneex bànneexu bakkan borom xam yi boole nañ ko ci kaat jikko yi nga xam jikko yu bon yi dajee nañ foofu bànneexu bakkan moo xam bànneexu awra la maanaam bànneexu awra la wala bànneexu biir ñaari bànneex yi ñoo gën a danger ci bànneex yi dégg nga kon ala kulli haalin boobu mooy troisième bi quatrième bi mooy alxadabu mooy mer mer boroom xam-xam yi nee nañ mer ci jikko yi nga xam ne kat jikko yi nga xam ne mboolem jikko yu bon yi fa lañ dajee ci la bokk moom tamit te mooy mer moo tax benn waaye ba mu ñëwee ci yonent bi na ko dénk ma yonent bi nan na ko dénk mooy bul mer waa ji wax yonent bi na ko dolli ma yow yonent bi yonent bi na ko bul mer mu ne ko yow yonent bi dénkaan ma loo may dolli mu ne ko bul meer ba muy trois fois loolu loo ci déggee mooy dëgg-dëgg mer lu mat a bàyyi xel lu mat a moytandiku la kon kaan yooyu la waxoon ne dañ ko leeral balaa ñuy continuer ci suñ laaj ndax lu am solo la ginnaaw xam nga ñeenti yee nga xam ne mboolem jikko yu baax yi ci lañ dajee te mooy muñ am ñu wax ne bi di di en fait fegu troisième bi di li nga xam ne ni mooy asujaatu jàmbaar quatrième bi di alaadalu maandu boo ñëwee ci quatre jikko yi nga xam ne mboolem jikko yu bon yi fa lañ dajee bu ci njëkk di réer de nga ñak xam benen bi moy tooñ toñangi benen bi moy banexu bakkan mo xam banexu biir la wala banexu awra beneen quatrième bi moy al ghadab moy mer kon lii tamit doomu aadama war na ca baye xel bu baakha baakha baax ngir mu meuna xam nan lay tindiko jikko yu bon yi eh, comme noko waxe tay suñ laaj bobu moy yeen sabab ci lañu meuna jaar pour am jikko yu rafet xam nga jikko ju rafet day amé rek ci ñaar yi bu ci ñëk moy mu nekk mayam yalla bo xamné yalla mo may maanaam nit ki am may yàlla goo xam ne dafa juddu rek an am jikko yu rafet macha allah loolu danay am beneen bi mooy mu nekk loo xam ne daf koy fàggu maanaam dafay def ay effort yàlla may ko ko dafay def ay effort pour mën a am jikko yooyu loolu ala kulli ñaar yi rek ci la a jaaree kon xam nañ ne nit ki dana judd nekk nit ku baax yàlla baaxal ko mu am ay jikko yu rafet loolu yàlla da koy def ci nit waaye tamit jikko dañ ko amee ci nit ki def ay effort ba am jikko ju rafet loolu nag ci lañ war a ñëw bokk na ci loolu mooy nit ki foog mu am aqida pas-pas boo xam ne pas-pas bu wér la maanaam pas-pas bu wér te dëgër dafay bokk ci li nga xam ne nii day tax nit ki mën a am jikko ju rafet parce que booy xool al aqida pas-pas mooy al imaan mooy ngëm-ngëm euh, te ngëm-ngëm googu al iman bi laay yonent bi dafa wax ne akmalul muminina imanan ahsanuhum xuluqan nee nag mu ne ku gën a mat ku gën a mat ci jullit ñi ngëm yàlla maanaam ku la gën a mat ci ngëm yàlla ku la gën a am ak ngëm yàlla ku la gën a dëgër ci ngëm yàlla kooku moo la gën a am moo la gën a rafet jikko kon loolu dañ ciy déggee ne kon jikko ju rafet wala ngëm yàlla gu wér pas-pas gu wér imaan gu wér dafay yóbbu nit ki ci mu mën a am jikko ju rafet beneen bi mooy ñaan ñaan dana dana bokk ci sabab yi cause yi nga xam ne nit ki mën naa tax mu am jikko ju rafet ndax ñaan mooy ngàndaayu jullit yonent bi daf ñu ne jullit lii ngàndaay mooy ñaan te yàlla moo wax ne ñaan leen ma ma may la kon yow doomu aadama bi deel ñaan yàlla may la jikko ju rafet parce que yonent bi alayhi salaatu wa jàngale woon nañ ko fi ndakam moom mooy ñaan yàlla di koy di pour yàlla may ko jikko ju rafet waxoon na borom bi yow sama yow sama borom ni nga xam ne noonu nga sa sama mbind ba mu taaru ci zaahir parce que jikko mbiru baatin la waxoon naa ko mais comme ni nga xamee ne sa jëmm ji ni ñuy gis ni gis say sa xar-xaram yi say bët say nopp say bakkan sa géñam say tànk say loxo luñ koy gisee si yaay ni gis ko mu rafet lool jikko moom mbiru baatin la léegi nag yonent bi ne yow yàlla noo rafetalee sama mbindu zahir gi ba nit ñi di ma gis gis sama taar nu ma taaroo yàlla ngoo ko rafetalee sama jikko nga xam ne mooy sama mbiru baatin kon loolu bokku na ci nit ki nu amé jikko jërfé moy di ñaan yalla pour mu may ko jikko jërfé ba tax yonent bi daan na bari ci ay ñaanal nga xamné bu doon ubbi ci walu julli sax daan na ñaan na allahumma ahdini li ahsani al akhlaq la yahdi li ahsani illa anta yo yalla yalla nga ma may ci gën ci rafa ci jikko yi ta kenn kenn du may gën ci rafa ci jikko yi rafa lu do yow ya kay may benen bi mooy daan na ñaan na allahuma wala inni asaluka as-sihhata wal afiya wa wa husnal khuluqi ma ngay ñaan jàmm ak wér waye yalla nga ma may jikko ji rafet kon ñaan bokku na ci yi nga xamni ni nit ki mëna ca am jikko ji rafet yalla may ko jikko ji benen bi moy jihad moy jihad ak sa bakkan bi xam nga euh, noon bu gën a rëy ci say non yow doomu arme bi te non mom moy moy moy sa bakkan bi nga xamni ni moy sa bakkan bi maanaam bakkan mo moy non bu gëna dans ci say noon te doomu arme bi ñu bari xamuñ lool nit ki mu ngi mu ngi lu nekk mu ngi def ay effort yu nekk pour jaakar nonam morom yi nitam pour xeexam moom pour rayante moom ci lu ne fekk mu ngi bàyyi noonu boo xam ne moo gën a danger te moo ko gën a jege te mooy bakkanam bi yonent bi loolu taxoon bay gaa yi demee ci xeex di xare dem ci xeex càttante ay jaase ak nu méttee ñii ñi jam leen ñii ñi euh, ray leen ñii ñi dagg seen ba gaa yi buñ jugeyaan ci xare bi yonent bi danañ wax ne yéen nag yéen a ngi jugee ko ci jihaad bu ndaw bi lii jihaad bu ndaw la waaye yéen a ngi ci funtoon yi ci jeexaat bu mag bi mooy jihaad ak bakkan moo tax doomu aadama bi pour mu mën a am jikko ju rafet foog mu xeex ak bakkan boobu ba yàlla mën kaa gidde parce que bakkan euh, parce que husnul xulqi xeet la rek ci xeetu njub yi yi yàlla di maye te loolu doomu aadama mu ngi ko mën a amee ci pour mu xeex ak bi bannoon noot bi alquran yàlla te yàlla nee na bu ngeen góorgóorloo jihaad ak ci ñun xeex seeni bakkan ñun ñu gindi leen teg leen ci ci ñoon walladina jahadu fiina la nahdiyannahum subalana la naa dégg nga kon loolu bokk na ci lii nit ki di amee jikko ju rafet bokk na ci lii nit ki di pour mën a mën caa jaar am jikko ju rafet mooy mu xisaab bakkanam nit ko war na di xisaab bakkanam maanaam di kal di régler bakkanam bi maanaam nit ko war na di toog di jàngat boppam di lan la def ci lu bon lu baax nit ku warta toog ba jant bi soo sax te warta xool man tey lan laa def ci lu baax ci lu bon bu fekkee lu baax la nga gën caa góorgóorlu bu fekkee lu bon nga jéglu sa borom te nga moytu ëllëg mu dalal la moo tax yonent bi daana wax na bu am xaasibu anfusakum qabla an bu maanaam régler leen seeni bopp balaa ñi lañu régler loolu mooy xisaab sa bopp beneen bi mooy danay bokk ci lii may jikko ju rafet lu ñu lu ñu ci lu to maanaam li nga xam ne mën nañaa may jikko pour ñaam ko mooy foog ñi bàyyi xel ci borom jikko ju ñaaw borom jikko ju bon mujjantalam lan la te du dara lu dul rek toroxtaane du dara lu dul rek daf koy yóbbee ci alkante daf koy yóbbee ci merek yàlla daf koy yóbbee ci mujj gu bon loolu nag doomu aadama bu ciy xool ak di xool ci ay exemple yoo xam ne am na ñoo xam ne ay jikko yu bon la ñu woon te fañ mujjee baaxut loolu bu ciy xool bu yàggee dana ko yóbbu ci mu góor góorgóorlu mën a am jikko ju jikko ju rafet beneen bi mooy yitte bu kawee yitte bu kawee danay may nit ki pour mu àgg am jikko ju rafet ibnul qayyim dafay wax ne képp koo xam ne fa man allan himmatuhu wa qashaat euh, wa qashaa nafsahu ittasafa bi kulli xuluqin jamilin dégg nga ibnu qayyim ne ne képp koo xam ne sa yitte kawe na sa bakkan bi nga toroxlu wàccee sa bakkan bi dégg nga ba mu suufeel ko bi maanaa nga toroxlu mu ne boobaa kooku dana jikkohoo dana melloo bépp jikko ji rafet dana ko melloo moom doomu aadama boobu kon yitte bu kawee mën naa yóbbu nekk ci jikko ju rafet beneen bi mooy lewet ak nooy ak nànk yii yëpp dana may doomu aadama bi mu am jikko ju mu am ay jikko jikko yu rafet dégg kon jikko yu rafet yu koy maye bëri na alaa kulli bañ a guddal beneen bi mooy yaatal sa xar kanam tàlli sa xar kanam maanaam basaatatul Pas parce que yonent bi nee na sax tabassamuka fi wajhi axika laka sadaxatu maanaam jàkkaarloog sa mbokkum julli rek ubbi sa xar kanam mu yànji ngay ree ci xar muy gis mu ne lu rek sarax la ñeel la te yonent bi daana wax na laa na min al maarufi walaw an talqa aqaaka bi wajhi talax mu ne bu leen xeeb dégg nga bu leen xeeb ci def njekk dara donte da ngay dajeeg sa mbokk sax fecc sa xar-xaram loolu bul ko xeeb kon timit bokk na sax ci yu gën a am solo ci jikko ji rafet mooy talaaxatul wacci par borom xam-xam ba ñu firi jikko ji rafet loolu lañ ko firi ubbi sa xar-xaram yaaj xar nga am xar-xaram bu yànji ubbil ko sa doomu a sa mbokku doomu armée dégg nga beneen bi mooy beneen bi mooy di jéggale di jëllale dégg nga loolu bokk na ci yi nga xam ne nit doomu aadama bu koy def mën na kaa yóbbu ci mu am jikko jikko ji rafet beneen bi mooy Eh, bokk na ci nu ñu amee jikko ji rafet mooy tabe tabe di dimbala doomu aadama yi loolu mën naa yóbbu nit ki ci mu am jikko ji rafet beneen bi mooy boo defee njëkk def teraanga nga fàtte ko waaye tamit di rafetal jëm ci nit ñi mën naa laa yóbbu ci nga am nit ñi am jikko ju rafet dégg kon yii yoon la yoo xam ne nii bari na waaye yii lañ ci tànn pour ne nit bu ci jaaree mën naa am jikko ju rafet beneen bi mooy lu ñuy tëjee rek mooy ci ngëneelu jikko yooyu jikko yu rafet doy na ci rek maanaam ci ci ci. ci doomu aadama bi bu bu xoolee ci jeexantal yi jikko ju rafet yi nga xam ne maanaam jikko ju rafet jeexantal yi nga xam ne effet yi nga xam ne mën na kaa def yoo xam ne yu baax la bokk na ci mooy mën naa yóbbee nit ki mu nekk nit koo xam ne kuñ bëgg la ku ñu soppalee doon maanaam nit ki bu amee jikko ji rafet dana dem ba yóbbee ko nit ñi dañ koy miin sopp ko bëgg ko parce que ngir rafetal gu muy rafetal jëm ci ñoom moo tax benn woykat dafa doon wax ne si ilan naasi tastaabit qulubuhum fa taala mastaabada al insaanu ixsaanu mu ne rafetalal ahsin ila naasi rafetalal jëmee ci nit ñi dégg mu ne boo ko defee rek da nga jaamonoo seen xol yi bi maanaam da nga dem ba moom seen xol yi ñu bëgg la sopp la nee na parce que rafetal def njekk def teraanga moom yàgg na ba mu jaamuloo doomu aadama bi waaw parce que gor boo ko defee leen njëkk dafa ko teraanga di rafetal jëm ci moom rek da nga koy moom kon loolu tamit dëgg-dëgg bokk na ci ngëneel yi jikko pour nit ki am jikko ji rafet jar na rek am jikko ji beneen bi mooy jikko ji rafet danay yóbbee nit ki manam du bari lu muy loraate danay yóbbee nit ki day bari lu muy defal maanaam dana yóbbee nit ki day dem ba nek day dem ba nga xamni bu amé non sax day day dem ba albatiku noonu bu def ko mi xarit bu baax xam nga alquran sax jox nañ ci misal wala tastawi alhasanatu wala sayiatu idfa billati hiya axsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamimun dégg nga yow bu fekkee da am sa euh, sa xarit wala sa diggante sa xarit bu fekkee ak noonu da caa ne mu ne yow bu la defee lu bon xoolal lu gën a rafet yow nga delloo ko ko waaye jamono ji àgg nañ foo ni ne jikko yi yàqu nañ ba nga xam ne ni nit ki boo ko xeer bu lay delloo sa birig la lay delloo kon loolu amatul le ak jéllale loolu amatul te yonent bi yàlla daf ko wax ne xuzil afa وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لولا كون خون ديال جيغلا دي جيل آه تا القران ديغلو لن وليعفو وليصفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم دينغا ديلن جيغلا دي جيل لا كنا بغ يالا جيغل لين تا كوتي نيك تون بغ نين جيغلال بروم بي سبحانه وتعالى تي ادنا ak alakhirah kon jikko ju refer mané day maye lolu day maye nga dem ba jël sonon daf ko mi ci xarit lolu jikko ju refer daf kay daf kay maye benen bi moy yooyu jikko ji rafet danay maye nit ki maanaam jot dara ju kawe kawe kawe am dara ju gu màgg ci àlaaxira tiyaabu gu rëy parce que yonent bi wax na ci àddi sax ne inna al mumina la yudrika bi xusni xuluqihi darajata al alqaimi jullit dana dana jot jikk ci jikkam ju rafet dana ci jotee tiyaabay koo xam ne dafa xoor weeru koor ba mu jeex ànd ak taxawee weeru koor ba di def ay nawaafil la ci aju te xam ngeen ne koor tiyaaba goo xam ne mu ngi ci ba yonent bi ne ba yàlla ci hadiis xus yonent bi di nettal ne koor moom as-sawmu lii wa ana ajzi bihi koor moom man maa koy fayal sama bopp ngir tiyaaba gu ci nekk kon bu fekkee ne doomu aadama bi si jikko ju rafet mën na saa mën na caa jotee tiyaaba yi ku taxawee weeru koor ba mu jeex ak def naafile yaa gi yëpp ya ca war ma ne kon jikko ju rafet jar na lu ne kon loolu dëgg-dëgg lu am solo la beneen bi mooy ci jikko ju rafet bokk na ci mooy ngeneen lu gulay wan ne jikko ju rafet am na ko mooy yenent bi dafa wax ci hadis ne lu ñuy njëkk a teg bis penc ci balance bi yow doomu aadama pour régler say jëf mooy jikko ju rafet maa min shay'in dégg nga mooy jikko ju rafet loolu yonent bi waxoon ko ba pare tamit ne lu gën a mën a diisal balance boobu ci ay jëf yu baax lu lu dégg ci jikko ju rafet maanaam lu gën a mën a diisal say balance sa balance mooy jëf ju rafet ma min shay'in yudaau fi l misaani afqalu min xusni l xuliqi loolu la waxal mu ne amul benn mbir boo xam ne dañ ko teg ci balance bi keroog bis penc yi ñu peesee jëf yu baax yu wane lu mën a gën a diisal say jëf yu baax yow say jëf yu baax ëpp mu ne lu gën jukki ju rafet kon dëgg-dëgg loolu dañ ciy déggee ne jikko ju rafet lu am solo la beneen bi mooy doy na ci rek ci ngëneel maanaam yeneen bi nee na man ki nga xam ne moomee gën a jege keroog bis penc gën maa sopp ku may gën a jege ci place kër bis penc mooy ki nga xam ne moo gën a rafet jikko ci yéen dégg nga moo tax mu ne inna min ahabakum ya wa aqrab wa aqrabikum minni majlisan yawma alqiyamati dégg nga axaasinakum axlaaqan yonent mi ne ki nga xam ne moo may gën a jege kër bis penc ci jotaay ci toogaay ku may gën a jege mooy ku gën a rafet jikko ci yéen kon ma ne lii rek doyoon na ngëneelu jikko ji rafet doy na ngëneelu jikko ji rafet rek mooy comme niñ ko waxee woon doon maanaam ngëm yàlla gu mat ku gën a ku ku la gën a am ak ngëm yàlla ku la gën a dëgër ak pas-pas ak ngëm yàlla rek moo la gën a rafet moo la gën a rafet jikko kon yii yëpp ci yi wane ne ay jikko yu rafet dégg nga beneen bi mooy yenent bi nee na waxoon ne inna min xiyaarikum ahsanukum axlaaqan mu ne ñu ñu gën ci yéen xam ne ñoo gën a nekk ay tànneef ci yéen mooy ñu gën a rafet jikko ci jikko mooy ñu gën a rafet jikko ji rafet kon dëgg-dëgg jikko ji rafet daal mu ngi noonu alxaaji loolu lañ leen ci indiloon ci wàllu euh, li nga xam ne ku ci jaar da nga am jikko yu rafet waaye nag noonu tamit lenn ci ngëneel yi nga xam ne ne mooy ngëneelu euh, mooy ngëneelu jikko ji rafet bu ko defee rek loolu rek loolu yëpp ngir gën a xemem loo doomu aadama yi gën leen a bëggloo gën leen a euh, xiirloo ci ñu ñuy wut jikko ju rafet mbaa comme niñ ko jàngale xam na nañ jàngale nañ yan jikko ñooy jikko yu rafet yi naka la ñuy xàmmee jikko ji rafet mu ko defee yow doomu aadama yi ñuy déglu da xam nooy def bis ni tey man nan laay def ba mën a am jikko ji rafet waaye nan laay def ba mooy tundu ko yi nga xam ne nii boo ci ya رجائي رفع الدين والسنة التي تجاهلها الأقوام في كل قرية